Relevão audiovisuel. ahla dikri in kuntum laa ta'lamuun kon jàpp naa fas'alu ahla dikri in kuntum laa ta'lamuun ak yëpp lu ko naatale su a fa fa in ittabaatanii falaa tas'alnii an shay'in hattaa uhdisa laka minhu boobu dafa xam nga beneen la gaañ waxtaan li daanu ñu dugg ci tasawuf gaañ yi xóot sëñ Tuubaa ak ci ndax diggante Moussa la woon ak Xadir wax na ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda wax na ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra kon da ngeen di bàyyi xel ci ne bis yu mel nii ngeen baal ma d'accord xasida jàng mi lu am solo la ndax sëñ Tuubaa moo ko waxal boppam sellal ko boppam yëkkante ko boppam ndax moo ne mazaayaaka yaa kulli la daal kulli qad jalat walakinaha jallat an ash-shi'ri wan nawl لأن يقول لسانك كفتبنا كعب وحسان والبوصير خبرع وكل شعره النور مصرع فمبلغ العلم فيه أنه بشر لكنه دونه عقل وأفكار وقيمت بالأفكار كنت من فلا تقيسون من عبد الله الله محمد خير خلق الله كلهم فلا تقيسون من عبد الله الله te nee na raama rasulullahi min ilahi kaw ñi xadimo wa abdallahi kon loolu ngeen xam ne moom kooku dong moo ko ñoroon waaye soo bàyyee xel loolu dañuy bàyyi xel suñ diggante ak say tubaab ci xasida yi ci suñ diggante ak moom ci ni koy jànge ak ni koy saray fasu naaru góor kenn du ko dawal ci biiru kër su ngeen bëggatee dajaloo di waxtaanloo borom xam-xam ci li tax nit ñi di jariñ ci bis bu mel ni nangu wutal tàmm nit ñi daja ndax tey nit ñi bëgg nañ njàngum xasida bi waaye nag bëgg nañ tamit nag seen xol yi ñu fàttali leen li leen war seen diggante seen ndax lii fi si wax naa ngay wax kat delloo ci nag am na murid bu fi delloo ci boppam delloo ko ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa daf ne yaqulu lisaanul xaali lii kun xadima man xamaaka anil aqdaari billahi saara kooku yàllaa wax ak moom moom ay responsable naka njëkk mu doo ko jël yàllaa dikk na ma yow waxal maanaam nekkal ma di liggéeyal ki xam ne moo dox sa diggante gàllankoor Sëriñ Tuubaa ki ngay tàgg ñoo koy tàggloo te xamoo ay maamam xamoo lu mu yonente bi nee na Sëriñ Tuubaa moo nekk ñoo ba ci ma noonu ne yuxaatibuni maa xiidali bi mu di annahu madihan ajiban mu fi man fakkara kon xam na ne ndigal la am ci digganteem ak boromam ci xasida yi soo demee ci xasida maraate dañ ne wa aalihi wa sahbihi wa mu jami la wax maasaa andi fii xidmati fii galgali am sallam kon moom ñaan na ci daraja yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla faxasal ko raxasal ko mbooleem lu nekk te xolam te bokk te ci jël na ko xatrum tuub min rabbil baraya xidma daan na limal bi jaayi kafaani sal daan kon man sàkku naa xatrum tuub min rabbil baraya xidma sëñ waa ne lii moom ak sam sama borom subhanahu wa taala mën na ngi yël ki nga xam ne bi ne ci darajaam dama yàlla tàqalee ko ko nga taw دان نكون احمده على خروج من دار وكل سوء سنت ناكو دي نكو لوتاخ سنت كو من داف ما генي تي لول اك ليپ لي اك اك اك ليپ نياو دان نو علائم دودو ما صاح صوم تاكو نو اكتو وخرب تول نا جي سام ديغي سام بروم لو خنا مرت ما بيو خاص دو تول ومدادي للاله وللرسول بنت الحمد لله فنن باي خلو waaye foofu wax ji la waaye li dëgg dëgg dëgg mbir mi mooy suñu diggante ak sëñ Tuubaa ci dimension bi nga xam ne bi ne moom la seex naa mi doon wax ko alladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulanaa al-arbaab doomu aadama ak njub la sunu borom sàpp ci moom sëñ Tuubaa waxal ko boppam tallaahi laysa yanfau al-mar'u ghadan inda hululi ramsihi siwal hudaa dara du jëriñ jaam bi ëllëg su faatoo su fekkee bakkanam room wattu ko la lul ak njub Seex Moustapha ba ko waaja ne liggéey bi metti na sonn na te jëmm nga joo bi ne sa jëmm ji tuuti na ci te lott ka ci ma bëggoon Mbàkke xam ko defee dimbale te ma ko yemal ci sa bopp te dimbale ma mun na ko Mbàkke su ma xamoon bu may yemee sama bopp dimbale la ko ma wax la ko mun na ko yaral sa bopp te sa bopp yaral sa bopp te sa bopp kon soo ko mën a lislaam dana dëppoo wax nga yàlla ne woon yonent bi wa innaka al a'la xuliqin asiim dana dëppoo gi waxi yonent bi ñu waxaloon boppam ne innama bu'istu li utammima makaarima xam naa ne comme xéewal yaa ngi yow kenn sant jaay yàkkamti nan ko coow li bari na dafa teel laa xéewal yi comme yàlla waaw kon dafay dëppoo li yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxoon ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla moo ma yónni ngir ma mot bi jukko yu rafet قل وانك على كل من عزيز ارفع الوهان لقد جاء ابو رسول من انفسكم عزيز عليه قل كي كن واجا لك دبل سنجوا انه لقد جاء ابو قد جاءنا قل ما دي حل لك واي قل من الله قل كي مو ديك وهان مو لا تاك واي تاك ريك سن بروم كيب لا مانا باي تنين كو حسابك يا خير البرايا سعادتي تاك كيمالاي تاك او وقت كيماي وقت يوم القيامه موي سما توك موي دان يؤمن كل يوم في سور ينطق kon war na ma bàyyi xel ci na suñu diggante sëñ Tuubaa bu ñuy jàng xasida yi naka lan war a mën a teewloo ndax it xasida tudd yàlla la te boo demee ci masaalikul jinaan ci baabu zikri sëñ Tuubaa dafa wax ne amma ma zikri fa huwa afdal min kulli ma kaana al muridu yuksir daana fa lafsu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu afdalu ma nataxoo man yasku bi mu dikkee bay wax nit koy defee كمن مستقبل القبلة ذات ربع أو متفرقا كمن صلى فعي لأن طيب رائحة كن بدأي فوق دان في جانة تلقون قشر لك بوكي جانة لنا ورا السنق بس ست سولي يريو ست توتي برابو ست تسل جبل بان فران كل لايو مبانو سوكسا ناري بتيو بامل كيجول طيب رائحة سيد قد جغنا نيخي خد نخبوه نخ ملائكة يالي دان لي دين بوكي تسون بول كرنا ولا ذكر الله أكبر نلا أقم الصلاة جلي سخ لذكري لبا نلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحصره يوم القيامة أعمى كن بن ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يلا نكاي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن نيكم يالا دغي دغي يالا تسينو يالا سولانو كوم كوم توالي ñoo ñu la suñu borom garanté ci tudd gi ñu tudd seen borom kon nan bàyyi xel ndax sëñ Tuubaa moom day leeral te du booyal nit ki rek ba ko ci bakkanam mu seet lu ko neex mu def ko déedéet wala yajrimannakum shana'aanu qawmin alaa an laa ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa te nee na walaysa bi amaaniyikum wala bi amaani ahlil kitaabi wa man ya'mal suu'an yujza bihi aw ñaawteef moom suñu borom def loo ko kenn du ko yàlla def kon nan ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel fii jamono toll nag doomu aadama nag mën naa mel lu ko neex wëlbatikuwaat xañ na wërsëgam wala juddoo mbaa darajaam muur ay ñaawteefam ban yaakaar ne ku baax la loolu moom leneen la afatalbisuna alxaqa bil baatili wa taktumuna alxaqa wa antum taalamun te wa min annaasi di am na ci man yaquluna amanna billahi wa bil yawmi al axiri wa ma hum bi muminina yuxaadiuna allah والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون باي كرام دافنا تا يالا كات بلا دينك جامل بي لف دا فاي ген دنيا بو ويب تي بلام كو دنيا مو بن مين دول بلام اميفول برام كات بو اويو دي دا كون سن ني سن عمر سن توبان ني نكو لا توسرن يا صاحبي هواك كون كو سن كمال سن توبان واجالو نكو من نكو ون نفس والدنيا على مولاك كون ور نكو خمال لا تستري الدنيا يوخا يا فتاه من باع نورا بدون جافة يندم أرسل نفر من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب له كون نيتك لي بغي تيرو ادنا سون بروم بايي كو ادنا لوكو نيه مو دافتي واي الله بوم فو بغ دارا سو بغي نا يوم الخيام غا تيرو فا غا سون وتاغي فيما اعطاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك كن نان باي خل ادنا مي موم دو دارو خراب وما ربك بظلام للعبيد وكل اتيه يوم القيامه فردا ولا يظلم ربنا احدا يوم القيامة كنا دغا ويت ak yalla ba yakarna mom kep yow rek la bind yalla toñul kenn يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم Serigne Omar mii nga xam ne moom lañ bisal bis bi tey jii te dénkaane ba mujj a dénkaane dafa wax ne amma saadiqul murid alladi qiila annahu qaabilu suluki man aada nafsahu kon bun jay suñ bopp jaalibatul maraaxib xasida la bu am leer sëñ Tuubaa daxañ ci tur yàlla wi nga xam ne boo ko dee liggéey day dal ci jëmmi yàlla ji ni màtt bi dala ci dégg gaa ñu baax ñi xam nan ko ku ko jàng ñett yoon ci ab jataay da nga yëg loo xam ne bi ne nitu yàlla dëgg ko war a yëg waaye loolu ngay xam xaal la ñu la abal xaal see bu buy tàkk la kenn du ci aw xew am nag ñu solo la sa mbubb mbaay mu jot la sëkk rafet lool ci yow bu taxee nga jàpp ne yaa moom mbubb ma soo jaayee mbubb ma tëdd ci kaso seerub jàmbur bu la ko abalee njàmbaas ko waru la loolu nan ko bàyyi xel soo xoolee diggante ñaar ñii ma la doon wax ci tasawuf fa ini tabaata nii ja lan tàmbalee ngay xool هل اتبعك لا نخ دوما لا عندك يا الا ان تعلمني مما علمت رشدا بان ديمي في جتي با خامني منو نو اند دا تاخاليكو تا لين تاخاليك تي اب يونت كي دو واجبا نياك ديغوم ولا نياك بوك لو ني سون خلاتي ديم موتاخ نيوم ني تاخاليكو ابراهيم مي كيرو بيم جاكارو سونو بورو سبحانه وتعالى وإسبت لي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي يا الله لا ينال أهدي الظالمين كوكو امنا فايدة امنا فلا تيوم من الذين جاهدوا فينا لنهدي ينهم سبلنا وهو السبيلي ننتي بايها يالا نيوانا ينتم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نيوانا ولو سيد لآتيت كل نفس هداها ولكن حق الخول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين سيحبك مدينة نيوانا بين طالب النفو بايل القلتين yaakaar sëñ Touba war sa bopp la te amul njariñ parte la yàllaa ko dàq mbindiif dàq ko nasaraan sañ na yowmal xiyaamatil akbar fa murid yëpp tabbal àjjana te sëñ Touba mi sos yoon bi du ko yëpp sëñ Moustapha Xasaayit moom Cheikh Abdou Mbacke borom dër bi moo ne ma Cheikh Abdou Ahad Mbacke ma woo ma wuy si ko mu ne ma Moustapha Moustapha nee na ma ne ko Mbacke mu ne xanaa xamoo ne sëñ Touba mi sos yoon bi su ne bërëb jëm ci murid bëgg koo dimbali ku ci fekkul Pastef du ci tànn ña ca def nee na keroog ba may tàqale ko mu dana bëre jox ma loxo gësam ko ne ma wala xad ahidna ila aadamu min qablu fa nasiya walam najid loo azman settantal aaya ko kon nan bàyyi xel bu baax a baax a baax ci njub te xam ne njub mooy lépp fa bi hudaahu iqata di la yàlla waxoon yoon alhamdulilahi lazi hadana li hada kooku ci njub lañ koy rey وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سيدتو عنينا سيدتو عنينا ووجبت طاعه من يحفو رسول صلى عليه من بي يحبو بسول من رؤساء دين ذو الكمال من لا يرى من سوى الجمال كن بالنفس بو لا طاعه لمخلوق لا ينتبع في معصيه الخالق كل من تتخجام يا الشيخ محمد مرتضى نينا منو لا جارين دارا كل من تتجام يا الله منو لا واني دارا sëriñ bu la fi dig àjjana te munta tax ba nga jaamu yàlla boo ko ñemee nee ko li nga wax amul lii maa la ko wax rajaau jannatin bila taati li sunnatil maahi gururun yaati nan waxante li fi ne te bañ a jayante sëriñ ak taalibe ak tool la ak gopp borom tool bi bu yolee gopp bi su bayul day booyal kon nan bàyyi xel temps bi maa ngi koy jël مانكو يتوب ديمير لما والسلام على من يتبع الهدى والحمد لله رب العالمين حلوهم اوجو بجوين حلوهم اوجو بجوين